donc li tax ñu woo leen du lenn lu dul dañoo am loo xamante ne nii faw ñu wax waxoo te waa Grand Yoff lay soxal mooy mairie bii ñu jëm muy élection locale yi boobu ba léegi depuis 2008 dañoo nekk ci politique gu Grand Yoff di jàppale ay nit nekk booy bu ndaw nekk koo xamante ne nii dañoo bëgg suñu gox fi ñu dëkk te bëgg nañu wax dëgg yàlla dëkk yi ñuy bëgg di fréquenter wala ñu di ko gis Grand Yoff war naa mën a jege loolu même bu ko melul donc ñuy topp ay nit élection bu ñëw am na ku ñu àndal mais bu ñu demee ba ci biir dañuy xam ni bokkuñu ay ambition ci dëkk bi ñu dëkk ndax bu ñu gisee tey 2014 ànd na àndoon nañ feeg nit bi ñu déparé teg dañoo gis mu dem di xëccoo feneen kon tey loolu jiite la donc yow foofu noonu taxul woon ngay jóg ñu gisati ñeneen ñoo xam ne yàlla dénk na leen ci suñu alalu réew ñu yor ci ay ndombal tànk dëkk ci gox bi mais li ñu war a def ñun dañoo gis ni dafa des ñu amati kilifa goo xam ni Grand Yoff la dëkk à chaque fois Grand Yoff moom la ñuy jox bopp parce que doomu dëkk ba la dëgg la mais tey jii ni nit da ngay bàyyi xel lenn koo xam ni toog na foo xam ni wax na carrément que ni Grand Yoff toxal ko moo gën a yomb defar ko loolu aveu d'échec la donc tey kooku buñ ko doon bàyyi xel amaana duñ ko dénk baa ñuy yaakaar ci moom mu ñuy sampal kenn yooyu yëpp bi ñu defee analise bi dañoo xam ni instant yi nii lanu mën ñun xale yi màgg nan ñi ngi jéemal seen bopp. léegi nag ku ne dafa am possibilité bokk ñiy dimbali askan wi ñoo jóg tey bëgg defar suñu gox te loolu yomb na te lu ñu bëgg mooy bokk bokk googu nag xaaruñu ci lenn lu dul population Grand Yoff jeunesse Grand Yoff ñu xamante ne ni li ñuy rêvé mën na doon dëgg te dëgg lay doon à partir d'aujourd'hui képp koo xamante ne ni suñu engagement suñu détermination parce que fexe nañ ba suñu ginnaaw nag man Jamil Seck su ma ginnaaw lépp a clean baax cadre de bi dina baax grave épicentre la ci Dakar épicentre la ci Dakar tey épicentre soit day wàcc baa mu yéeg wàcc gi nag li koy indi mooy nit ñi di yokk di ñëw créé wuñu benn possibilité pour yëkkati ko affaire bi di gën a wàcc di dem te bu ñu continuer di seetaan jeunesse bi laay waxal bu ñu continuer di seetaan nii lay continuer booy du ñu am lu ñu def chômage bi di yokku tu préfères këf baa nga agressé te loolu la ñu bëgg tey mu deñ ne serait-ce que élevage bi ñu maîtriser mën nañ ci tijji ay bunt mën nañ ci tijji ay bunt fii jeune boo fi wax ne ko je suis éleveur professionnel dama yor ay laadum da lay da day kontaan donc yooyu mën na nekk ay bunt yoo xam ni mën nañ si jàpp te man à partir d'aujourd'hui def naa déclaration xam naa ni beneen étape bu ñuy def ci Covid bi la ñuy xeex masque moom bëgg naa di kenn dootu ko jaay biir Grand parce que tollatuñu fu ñu war a jëndee masque moo xam 100 francs la moo xam fukki dërëm la. programme yi ma lay wax on en a discuté point par point muy assainissement muy cadre de vie bi muy santé comme niñ ko defee woon maye woon nañ fi ci hôpitaux yi valeur bu 265 millions am nañ aussi équipement médicaux yoo xamante ne valeur bu 800 millions yu war a ñëw yoo xam ne dañ koy tas ci poste de santé yi kon donc nous on est là pour aider la population donc je crois que comme ni mu ko waxee dinañ développer point yu bari te dinañ ci waxtaan te li muy wax rendez-vous dans di dans di ans je crois que dans dix ans dinañ fi toog yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu fekkee ko tal ko léegi li ñu mën mooy mooy li ñuy woo jeunesse bi ak kum ci mënti doon dinañu sol suñu dàll dem xooli leen xool nu nu àndandoowee ñun bëgguñu li ñuy def Jamil kese moo ne si kanam wala mook Ablaye Diop wala moo keneen waa Grand ñuy jóg